sëñ bi Youssou Diallo ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di yow yaay njiital club euh, Sénégal émergent nekkit PCA bu Sonacos SA ak yow kon mën nañu waxtaanee li nga xamante ne moom moo xewoon ci talaate gi ca Paris la France muy kon ndaje mi nga xamante ne Afrique ko taxoon jóg ngir sukkali wàllub koom ngi ñu jàpp ni euh, mbasum Covid 19 bi euh, def ci indi lorange gu bëri. ñu duppee ko sax ab new deal muy waxtaan yu yees ak yeneen pexe yu ñu fësalaat ban jàngat nga ci am. waaw jërëjëf maa ngi leen di sant waa Rewmi FM. Mm-hmm. E ci turu membre club Sénégal émergent yëpp. E mais mm-hmm. aussi Sonacos mi nga xam ne maay président conseil d' administration. jërëjëf bu biñ ci am jàngat bu bu rafet la. E, parce que dafay mel na ni li président Macky Sall doon wax ba ñu demee ci Covid bi ba am ci xëy juróom ba juróom benn weer xam ne bi ñu xayma seet. li jeexital yi muy am ci Sénégal ak réewu àddina si hmm. surtout réew yi néew doole président Macky Sall waxoon ne e moom daal bu doon sagooma bor bi nga xam ne moom la réew yu néew doole ak yi nekk ci en développement yore bu doon sagooma daal ñu seet nañ ko faase faase nag mooy annulé ci tubaab hmm. et loolu nag waxu ko pour bor bi yëpp mais dafa bi nga xam ni moom la ñu yoral état yi ak ñu yoreel ko organisation multilatérale yi comme ay banque mondiale ay fonds monétaire ak yu mel noonu mhm. et ko defee aussi am na même ci biir Afrique ñu nga xam ni eh, xawoon nañu kontar loolu waaye defe naa ni bi nga gisee ndaje Paris bi àddina sépp fa daje Afrique daanaka kenn manqué wul ña doon eh, jàppale position mag président Macky Sall bi ak ñi nga xam ne sax dañ ko xawoon a contre mu wane ni e, gis-gisam leeroon na ci loolu et wane na ni aussi Sénégal e, nekkuñu ci ay làmbaatu e, lépp lu ñuy wax dañ koy xayma seet ko seetantal ko ba gis ni kat fii la war a jëm donc kooku ndam lu jëkk la ci Sénégal et aussi ba réunion amee gis nañ ni et président Tshisekedi bu jiite Union africaine ki nekkoon ci wetu président Macron gannaaw moom président Macky Sall la donc Sénégal joxoon ci cër bu rëy mu mel na sax Sénégal moo ko organisé maanaam mbir ma ñi ko woote daanaka Sénégal daf ci amoon cër bu rëy léegi nag ca waxtaan bañ ko waxtaan et dafa mel ne réunion boobu dafay préparer groupe bi nga xam ne mooy g nga xam ni dëkk yi ëpp doole ci dëkk tubaab yi ñoo ca nekk nga yokk ci Chine nga yokk ci Russie ak dëkk yu mel noonu ñooñu nag tegal guy bi maanaam décision bi ñu war jël ci wàllu parce que am na déjà lu fa génn parce que ci li ñuy wax droit de tirage spéciaux yi et ci six cent cinquante milliards de dollars yi FMI génne et Afrique dina ci am euh, trente quatre milliards hmm. trente quatre milliards ci Afrique nit ñuul am ci vingt quatre milliards trente quatre milliards de dollars boo ko jëlee daanaka mel na ni mooy vingt mille milliards euh, de francs CFA kooku Afrique mën na ci jàppandeku waaye nag leneen liñ ci toftal mooy et eh, bëgg nañu parce que gis nañu loolu néew na ci li Afrique soxla ci koppar pour mën a euh, taxawalaat économie ñu proposé ni au moins na nekk cent mille na nekk euh, euh, cent milliards de dollars cent milliards de dollars moom mooy cinquante mille milliards au franc CFA kooku tane ne waaye nag bu ñu seetee li FMI xayma ci li Afrique soxla ci ñetti at yi di ñëw ci wàllu pour suqali seen koom-koom gis nañ ni il faut au moins cent trente cinq milliards de dollars ba deux cent cinq mille dollars milliards de dollars pour que ñu mën jàppale économie africaine ba ñu hmm. waaye nag kooku ak beneen bi mooy gis nañ aussi secteur privé bi nekk Afrique dañ ko war jàppale pour mu suqaliku parce que moom bu suqaliko et eh, dina jur ay koom-koom mais dina jur liggéey ak leneen kooku aussi li ñuy wax alliance pour l'entrepreneuriat en Afrique nga xam ne dañ koy lëkkaloog ak dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo beneen bi ñu ciy teg toftal mooy mbirum mbas mi parce que gis nañ ni lii am yëpp mbas mi moo ko indi te mbas mi gis nañu fi mu toll Afrique ñi nga xam ne jot nañu ñàkku boo jëlee téeméer bu nekk ci nit ñi weesuwul ñaari nit kooku néew na lool mm-hmm. te euh, virus bi li tax mu doy waar moom mooy dafay sopparñiku te bu na mu gën sopparñikoo gën a garaaw kon nag dëkk tubaab bi bu leen neexee bu ñu woo à cent pour cent sax Afrique ak yu mel noonu euh, euh, seen vaccination doyul mbas mi du fi jóg mukk mm-hmm. ñu ne nag léegi eh, ci mbiru mbas mi dinañu fexe ba Euh, brevet yooyu maanaam nga xam ne droit de propriété yooyu tubaab yi am ci seen usines yi danañu fexe ba dindi ba nga xam ne léegi suñu réew yi daañu mën fexe ba di ka di defar vaccin bi comme ni ko Sénégal deer doore yi hmm. daal bu ma ko mënee wax ci ci léegi nag. Hmm. ñu toftal ca ni et yenn décision yi nga xam ne nag surtout yóbbu affaire bi cent milliards de dollars euh, ci DTS yi. Hmm. kooku nag sommet g bi. bii waat daje ci mois de juillet bii di ñëw incha allah moom moo war jël yenn décision majeure hmm. lii daal laa la mën a tënkal hmm. ci ndaje boobu di la wan ne am solo maanaam am na ay jéego yu baax yoo xam ni jot nañ ko def waaw njeexital gi kañ la ko Afrique war a um, tàmbalee dundu ndax uh, pexe yi ci jóge bëri na wax nañu ci DTS yi wax nañu tamit ñu nu mën a xoolaatee anam yu ñuy jàppale réew Afrique yi ak yeneen pexe ba ci kon vaccin yi loolu maanaam solution yi ci ni mu gën a gaawee uh, kam nañ ko mën a xaar. waaw kooku moom defe naa fi mu nekk ñi sax parce que Sénégal déjà. Euh, président Macky Sall euh, lancé na loolu ci ak euh, l' institut institut Pasteur ak yeneen structures yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk pour ñu fexe ba lëkkaloog ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkku tubaab yi pour que ñu mën a fexe lu ñu defaree vaccin yi ci ci lu gaaw. e am na aussi yeneen ndimbal yu ñu jot déjà gis nga li jotoon ci Chine jot ko ci COVAX et jotaat ko ci Chine. ak li nga xam ne moom la Sénégal jëndoon xam nga déjà ñi gën a avancé d'ailleurs ci dëkku Afrique yi ci wàllu vaccination ñun Sénégal ci lañ bokk donc kooku defe naa ñu ngi jeexaar yeneen jeexital yoo xam ni dana gën kii parce que li président Macky Sall wax rek mu ni léegi àddina si et lii dëgg tey dëgg daal ñun ñëpp war ko xam jàpp ko mooy léegi àddina si kenn mënatul taxaw fale rek et nit ñi ñu néew doole naa leen naa leen noon ma sant leen li ma bëgg ñu def ko léegi àddina dafa demee no xam ne lu bees la dañu war ànd tabaxandoo tabaxandoo nag mooy buy tabaxal nit da ngay ñëw kat ne ko yow nan nga bëgg ma tabaxal la lan mooy sa priorité noo bëggee kër gi est-ce que da mu nekk benn étage da nga bëgg nekk ñaari étage da nga mu mel nii wala mu mel waaye lu tax lu tax réewu Afrique yi lu tax réewu Afrique yi président mënuñu ba léegi demal seen bopp lu tax ñuy sukkandiku ba tey ci réew tugal lu ci mel ni France ngir dox ndax ñoo ñuy gindi lépp ñoo ñuy wan yoon wi. déedéet xam nga fi mu nekk àddina sépp ñoom la euh, parce que mbas mi dafa nekk dafa am dafa nekk choc boo xam ne jeexital yi am ci àddina sépp daanaka mosul am. Ah, loolu avant mbas mi la États-Unis gis nga mi ngi ci presque ñetteelu plan de euh, pour jàppale économie hmm. France Japon yooyu ngay gis ñoom ñun nag suñu suñu suñu suñu tooñ bu njëkk mooy mooy néew doole. Hmm. parce que suñu suñu koom-koom yi dañu néew doole boo demee dëkk bu mel na France boo fa jëlee benn entreprise boo xam ne sax da wax li ñuy wax PME et léeg chiffre d'affaires am dafay ëpp budget Sénégal. Hmm. xam nga réew yu néew doole lañu ko wax wax di nañu alal am nañu pétrole waaye teewul ci réew yu néew doole lañu bokk. Hmm. mooy waral nag bu euh, euh, gis nga jéego yi réew mi defoon boobu at juróomi euh, depuis deux mille croissance bi jug na réew mi liggéey yi gën na yokk leneen gën na yokk waaye nag boo gisee ci ndóol gi nga xam ne moom la fi président bi fekkoon et eh, am na ci wàññeeku naam mais dafa mel na boo ko xoolee sax est ce que am na lu wàññeeku ci loolu fekk na ay ëllëg yow yow wàññeeku na waaye nag ndóol gi moo moo moo xaw a takku ci réew mi moo takku suñu réew yi hmm. nga xam ni eh, il faut que ñu lëkkaloog ñi nga xam ne ñooñu xaw ëpp doole tuuti eh, Euh, euh, di gis suñu ci loolu pour gën a mën a hmm. yàlla xam na ne ñu def ay jéego waaye nag euh, da di ndar xëyul sotti. Hmm. ñu bëggoon xam nag xalaatub club Sénégal émergent ci orientation économique yu bees nga xamante ne nguur gi jël na ko rawatina li mu gën a farlu ci ndaw ñi. waaw kooku moom dañ ko génn nañ leen communiqué bu bu bu fës sax boo xam ni eh, taskatu xibaar yëpp jot nañ ko. et wane ni daal e, président Macky Sall e, xalaatin yi mu génne ci wàllu ndaw yi e, daf ko daf ko feddal yi parce que ñu bare dañu foog ni sax xëy na ak jafe-jafe yi amoon fan yële ci mois de mars moo ko waral waaye nag bu ñu fàttalikoo ci bi ñuy dem campagne électorale président Macky Sall programme bi mu génne woon muy liggéeyal ëllëg daf ci junj juróomi mbir ci juróomi mbir yooyu ba ca jiitu moom mooy wàllu ndaw ñi bu ne ndaw ñi nag mooy ndaw ñi ak jigéen ñi mu ni eh, solo réew mi eh, eh, soxla réew mi buñ ko mënoon tënk ci benn poñ day doon faj saafara mbiru ndaw ñi parce que ndaw ñi ñooy tey waaye surtout ñooy ëllëgu réew mi te ñoom ñoo ëpp ci nit ñi sénégalais yi boo leen jëlee ci téeméer juróom benn fukk yi ak juróom ay ndaw la donc boo saafaree jàngara ndaw ji saafara jàngoro mi bi mbas mi ñëwee nag dafa gën dëggal loolu parce que ñooñu ñoo soxla liggéey ñoo ñoo soxla faju soxla jàng ñoo soxla ay loisir ñoo soxla ay équipement ñoo soxla et cetera et cetera ba nga xam ni ñooñu eh, club Sénégal émergent dafay rafetlu taxawaay boobu léegi nag li ci des mooy programme bii mu taxawal muy liggéey ndaw ñi nga xam ni prévoir nag génne na ci budget bi déjà loo xam dana toll ci quatre cent cinquante milliards pour ñu dugal ko ci et ay la yëwan li ñaan mooy ñi nga xam ne ñoo war a jëfe loolu ñu jëfe ko jëfe bu leer ci ci yemale et surtout alal ji nga xam ne génn nañ ko ci mu dem ci ndaw ñi nga xam ne moo tax alal jooju ci ndombal tànk euh, PCA bu kon Sonacos SA bi nga xamante ne ci nga nekk ñu bëggoon nga defal ñu ab xayma ci campagne euh, gerte gi nga xamante ne kon moom la ñu wees ndaxam li ngeen doon mbëbët wala li ñu doon mbëbët yépp am na waaw campagne bi moom boo koy jàngat da koy jàngat ci ñi ci nekk ñëpp d' ci gouvernement hmm. euh, gerte gi ren àgg na ci niveau production boo xam ne mosu fa àgg lu ëpp un million huit cent mille tonnes Sénégal daanaka daanaka presque mosu ko am E, beneen bi mooy ci njaay ak jëndum gerte bi e, daanaka commercialisé nañu ci circuit officiel daanaka lu toll ci ëpp sept cent mille tonnes aussi lu baax la exporté nañu presque lu toll ci sept cent mille tonnes e, cinq cent mille tonnes waaye nag ci wàllu ñi nga xam ne ñooy nal nal dawli muy huileries yi Sonacos Copéol ak ñu mel noonu CAIT ak ñi nga xam ne ñooy transformateur artisanaux yi maanaam mooy ñiy def dawlin segal et daanaka ñooñu li ñu jënd ci gerte ëppul cent mille tonnes xam nga loolu néew na lool. et moo waral Sonacos moom moo ci ëppale mi ngi ci diggante cinquante trois ba soixante soixante mille tonnes loolu néew na parce que même point mort Sonacos maanaam li nga xam ni moom bu ci jëndee gerte perte ci xaalis gañewu ci xaalis e eh, cent cinquante mille tonnes la toll la toll boo jëndee nag lu toll cinquante mille tonnes daanaka mel na ni ñett yoo war liggéey daanaka benn bi liggéey donc da nekk ci su activité kooku dafay tekki dana indi chômage technique ci sa ay liggéeykat. Hmm. dana indi ñoo daan jël jox leen ay contrat dootoo leen mën jël jox ay contrat et dafay am jeexital non seulement ci koom-koomu Sonacos koom-koomu réew mi mais aussi daf koy ci wàllu emploi ak noonu. Hmm. Hmm. président nag bi mu xamee loolu am na digalim jox ci wàllu ay soppar ñi ñu war def soppar ñooyu nag nee bu leen toogati seen usine rek di xaar ñu ñëw indi leen gerte. léegi dem leen fa gerte gi nekk kenn euh, lëkkaloo ak ñu bay gerte kuréel yi ñu am ak OPS yeeg ñooñu ñëpp pour fexe ba li ngeen soxla ci gerte ngeen koy am. Mm-hmm. kooku nag euh, directeur direction générale ci njiitu général bi. taxawal nañu ci euh, ci orientation wu conseil d'administration li ñuy wax direction partenariat achat grain. Mm-hmm. te direction boobu nag léegi moom war a dem pour def lu mel hmm. waaye nag am na yeneen yu des yoo xam ni gouvernement bi war na seet aussi nu ñuy organiser campagne bi ba nga xam ni eh, euh, ku ci nekk daal daa ci mën gis sa bopp parce que huileries yi ñee nal dëwlin transformé ko. Hmm. boo jaayee bitim réew valeur bu deux cent milliards ci gerte go xam ne da nga ko jël rek jël graine yi nga yóbbu bitim réew. alors que boo ko transformé woon fii ci réew mi. dana hmm. jur ci njëriñ lu mat ñetti yoon deux cent milliards yooyu muy six cent dana fi jur aussi liggéey yu gën a bare. Hmm. dana fi jur yu gën a bare ci budget état bi. dana fi jur yeneen entreprise yoo xam ne dafay créé wu eh, li ñuy wax ci chaîne de bi. Hmm. kon nag euh, liggéeyu ndaw ñii ñuy wax li koy réglé dëgg dëgg dëgg mooy réew mi industrialisé wu. Hmm. te industrie yooyu nag mi ngi door ci industrie yi nga xam ne li jóge ci mbay mi ñoom ñoo koy soppar ñi ñoo koy liggéey. lu mel na Sonacos. ñu jéggalu sëñ bi kon euh, Diallo duñu mën a addu ci wàllu politique ndax damay fàttali tamit bokk nga ci parti bi di APR waxtu wi ñu loon euh, kon euh, jeex na ñu lay gërëm bu baax sëñ bi Youssou Diallo. jërëjëf maa ngi leen gërëm.